وعن أبي الحسن المفضال ساق علي خليفة الشيخ في الصدر والإعلان هنا الحديث السابع والثلاثون fanweereelu xadiis ak juróom-ñaar an ibni abbaasin jëlee nañ ci sayiduna abdullahi bnu abbas radiallahu anhuma yal na yàlla boole abdullahi ak baayam sayiduna abbas ngërëm an innabii mu jëlee ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fii maa ca la nga xam ne yarwihi dana soloo ko moom sayduna nabi mm. sallallahu alayhi wa sallam an rabbihi jëlee ci boromam mm. tabaraka wa taala mm-hmm. tabaraka bëri na barke mm-hmm. tabaraka màgg na mm. tabaraka kawe na mm-hmm. wa taala kawe na annahu naka sama borom tabaraka wa taala qaala wax na mm-hmm. hmm? mm-hmm. wala annahu naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. qaala wax na jëlee ci boromam mm-hmm. ne inna allaha mm. <clears throat> naka yàlla mm. kataba bind na mu bind na yool mm-hmm. bind na mm-hmm. eh, bindu dogal mm-hmm. kataba bind na bind ak dogal alxasanaati yu rafet yi tiyaabo yi wa sayyiaati ak yu ñaaw yi mm-hmm. inna allaha naka yàlla mm-hmm. kataba bind na mm-hmm. bind dogal ak pay alxasanaat yu baax yi wa bind na bind tabbi ak fay assayiaati yu ñaaw yi nga xam ne war naa tabbi yépp ndem yu rafet la hmm. ndem yu ñaaw la hmm. sama borom a ngi leen bind hmm. ci xàlluwaam bi waaye yi nga xam ne dana tàbbi ci yu rafet yépp la cay yool sama borom a ko bind waaye yi nga xam ne dana tàbbi ci yu ñaaw yépp la cay mbugal ak la cay bàkkaar sama borom bi dina faman hamma thumma bayyana dalik donc mu expliqué loolu thumma bayyan thumma mu leeral dalika loolu waaw yàlla bind na yu baax yi bind na yu bon yi am na ñu ko mën a dégg waaye du ñëpp yonentu comme ñëpp lay jàngal fokk mu hmm. leeral dafa hmm. hmm. mu ma bayyana dalik fokk mu joxe explication mu ne fa man hamma képp ku hittewoo bi xasanatin ci def mbaax falam yacmalha wante jotu koo def katabaha bind ko laahu yàlla indahu fa moom xasanatan muy mbaax di tiyaabo kaamilatan ju mat sa xel dem ci def baax mm-hmm. ak yittewoo mbaax du benn mm-hmm. yittewoo mbaax mooy nga dogu ne danaa def nangam mm-hmm. am lu la gaar hmm. ba mënoo koo def hmm. yittewoo ga nga ko yittewoo hmm. ba dogu ca danañ la ca fay yoolu ku def mbaax sukk ndax am nga yenn ju dëkk am nga dogu ku dog nga ko def ngànt tax mënoo mm-hmm. ko def ak lu ngant la ngantoon maanaam mm-hmm. mm-hmm. yittewoo def mbaax te defuloo ko dafa am ay anam am na ay melo bu njëkk bi mooy nga dox ci sabab yi waaye jotoo àgg li ciy misaal mooy waxi yàlla ji mu wax ne wa man yaxruj min baytihi muhaajiran muhaajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu almawt thumma yudrikuhu almawt faqad waqaa ajruhu ala allah génn ci ku génnee këram gàddaay jëm ci yàlla ku yonantam waaye dee dog ko ci dee jot ko ci diggante bi xàggut faqad waqaa tabbina ajruhu ala allah naka noonu waaye li ñuy jot jëm ci jàkk ja hmm. bëgg a julli ju farata hmm. ci diggante bi am lu ko dog hmm. dana am yoonu ku julli julli mbooloo moom wala jog nga pour julli te danga yéene taxaw ci diggante bi am lu la dog ba mënoo continuer taxaw ba nga toog am nga yoonu ku taxaw julli ba mat sëkk ndax loolu nga dog woon def maanaam yow yéene nga mbaax hmm. jog nga it di dox ca sabab ya hmm. waaye am lu la gàllankoor ba mottal yow hmm. ñaareelu anam bi yitteewoo nga mbaax dogu ca wante nga bàyyi ko ngir geneen mbaax goo xam ne gis nga ni moo gën bi nga defee mbaax ga gën a kawe bàyyi mbaax ga gën a suufee it yittewoo ga nga ko yitteewoon nañ la ca waaye dafa dikkal yonantu bi nga xam ne yonantu alxamba dafa dikkal yonantu bi yonantu bee màkka da koy yonantu sallallahu alayhi wa sallam dama ndisiroon ne boo la yàlla ubbilee màkka mm-hmm. danaa julli ca baytul maqdis mm-hmm. ci falastin mm-hmm. yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko solli julli fi daal di baamtu loolu yonentu ne ko sha'nuka idan mm-hmm. dafa lu la neex wan mm-hmm. ah, mm-hmm. yonentu nga koy jàngal fii ne ko solli haahunaa jullil fii maanaam bàyyil fële nga julli fii bu wa bu bàyyee baytul maqdis julli makka makka gën baytul maqdis ah, bu bàyyee baytul maqdis julli madina madina gën baytul maqdis te dana am yoolu yittewoo gëm fa yittewoo woon julli ak yoolu julli gi mu julli fii mm-hmm. walla nga bëggoon a jóg ne dama fas yéene naafila mm-hmm. yittewoo ko mm-hmm. préparé ba bëgg koo def am ku ñëw fëgg la nga nekk ca di waxtaan ba fàtte julli ga walla ba heure julli googu weesu bu fekkee julli maxsuus la ki julli yoor yoor yow dañ lay fay ci yittewoo gën ko yittewoo mm-hmm. ak dog ga ko dog woon mm-hmm. donte am na lu ñëw gaar ko ba nga ba ko mm-hmm. waaye ay degré la nag hmm? moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci boromam ne inna allaha yàlla kataba bind na alxasanaati yu baax yi wa sayiaati ak yu bon yi thumma bayyana fa man hamma ku yittewoo na bi xasanatin ci mbaax walam yaamalha te jotu koo jëf hmm. katabaha bindu ko laahu yàlla hmm. indahu fa moom xasanatan muy mbaax hmm. kaamilatan bu mat sëkk mooy yittee woon waaye bokkul ak sa xel daj baax rek te defoo ko defoo effort pour def kooku moom duñ ca fay kenn daal mu ne wa in hamma ndem yittee woon biyaa ca mbaax gana fa amilaha tem def ko yittee woon a mbaax gi dogu ca mm-hmm. def ko mm-hmm. katabaha fooy bind laahu yàlla mm-hmm. katabaha daf koy bind allahu yàlla indahu fa moom achara xasanaatin muy fukki tiyaabu lum néew néew ila sabci miati dicfin jëm ba ci juróom ñaar téeméeri ful ila adcaafin jëm ciy ful kathiratin yu bare bare bare bare Hmm? bu fekkee nag jot na koo def hmm. yàlla moom du fay benn benn de hmm. moom boo ko defalee benn daf koy multiplier lu mu tuuti tuuti par dix man jaa bil xasanati fa lahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun yàlla wax na ci sóotu anaam hmm. ku dikkee mbaax hmm. ñeel na ko fukki kemam hmm. ku dikkee mbon duñ ko fay lu dul la mel ni lam def waxum te ñoom kat laa yuzlamuun a duñ leen tooñ ndax maa rabbuka bi zallaamin lil abiid subhaanahu wa taala fukki yii de diggam yàlla la te yàlla loo wax ci suuratu Ali Imran rabbanaa innaka jaamiu nnaasi li yawmin laa rayba fii ah inna allaha laa yuxlifu l-mii'aad yàlla du foosee ab dëgg lu mu wax rek def ko subhaanahu wa taala lu mu tuuti tuuti dana ko ful ba muy fukk ko neexee mu ful ko ba muy juróom-ñaar téeméer ko neexee wallahu yudaa'ifu liman yashaa ah dana ko ful ad'aafan kathiira ilaa ad'aafin kathiira mu ne wa in hëmma mm. dem hittewóona mm. bi sayyi atin ci mbon mm. falam yacmalha wante jotu koo jëf katabaha bind ko mm-hmm. laahu yàlla indahu fa moom xasanatan muy tiyaabo kaamilatan gu mat sëkk mm-hmm. yàlla baax mm-hmm. Hmm? ku yittewoo mbon waaye jotu koo jëf hmm. sama borom dana ko ko bindal hmm. muy ab tuyaaba hmm. lu tax daf koo bàyyi ngir moom lim dikkee ci xadis joo xam ne ma ngi ci saxihu muslim ne xadis abu hurayrata li annahu innama tarakaha min jaraa'i ndax daf koo bàyyi ngir man ay min ajli bàyyi gi nga ko bàyyi ngir yàlla hmm. gannaaw boo ko naree moo hmm. tax yàlla bindal la ci tiyaaba ju mat sëkk hmm. nga xam ne kon yittewoo mbon am na ay mbir bokk am na ay axwaal xaal bu njëkk bi mooy yittewoo mbon sa xol dogu ca duut rekk lu sa xel daj waaye nga xalaat yàlla bàyyi ko nga ragal yàlla hmm. bàyyi ko hmm. kii la bindal xasana hmm. bu mat sëkk lu tax daf koo bàyyi ngir yàlla xelam daj na ko yi téewoo na ko nar na ko bay eh, dégg nga eh, fas yéene jóg pour def ko waaye xelam ne yar ci yàlla bu ba ko ngir yàlla ba gi mu ko baax ngir yàlla moo tax bàkkaar ba mu ca waroon a jëlee hmm. soppil ko ko muy tiyaabu mën sëkk hmm. ndax baax ngir yàlla hmm. yéene la jëf la bu xol la ñaareelu xaalatu bi mooy kii moom yitte woon a mbon gi yamut ca dogu na pour def ko waaye lottu na nag ngir dox jëm ca lottu na ngir dox jëm ca sabab ya nga xam ne mm. ñooy tax mu mën a def mbon googu mu mën mm, mm. hmm? mooy li yonentu sallallahu alayhi wax ci waajoo xam ne amul alal waaye gis na ko am alal di ci caaxaan mu ngéeju ne bu ma amoon alal de kon waa ji xam ne gënul ma ëppul ma bës de wala dàqul ma foye mm-hmm. dégg de mm-hmm. maanaam moom amul dara hmm. waaye lim gis na ki bon am di ko def hmm. mi ngi ngéeñu dégg nga yi ne su ma amoon hmm. def ni moom kooku it ngi am ca la ko yàlla di bindalee bàkkaar moo tax yonentu ne fa huwa bi niyyatihi kooku mu ci yéeneem fa huwa de ak kole def loolu fil wisri ci bàkkaar sa waawun yamoo nañu yé amul dara mm-hmm. waaye nag ngéeju na ne soo amoon mm-hmm. li kële am mm-hmm. dana def li ko koy def te li ko koy di def dara baaxul yéeneem tax na ñu bindal ko bàkkaar logo waaye duwul bu duwul ne xelam daf ko daj rek déedéet daf ko yéene daf ko fas yéene daf ca doggu waaw ndax xel lu sa xel daj rek ko mm. kenn du la jëbindal bàkkaar ndax mm. moomu la moomu la sa xel mm. Eh? ñetteelu xaal bi mooy koo xam ne yitte woon a mbon jóg jëm ca waaw def na li mën yëpp pour def mbon nga waaye nag amul pexe mënul koo xàggale mm-hmm. maanaam lottu na walis wëyal mbon nga mm-hmm. kooku dañ koy bindal bàkkaaru mbon bu mat sëkk mm-hmm. comme ku ko def mm-hmm. moo gën a dëgërle sax mm-hmm. ki jiitu nii li ciy tegtal mooy yonentu sallallahu wax na ne ida ltaqa almuslimaani bi sayfihima falqaatilu walmaqtulu fi nnaari ñaari jullit suñ dajee ku ne yoree jaasi ñuy xeex ki rey ak ki ñu rey yëpp safara lañ jëm ñu ne ko yow yonantu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ki rey moom xam nañ mbiram mm-hmm. waaye ki ñu rey moom lu mu def mm-hmm. ñu rey ko ba pare muy dem safara yonantu ne li annahu kaana xarisan ala qatli saaxibi bu fexeem sotti woon mu rey moromam hmm? bu fexeem sotti woon moom mu ray moromam mm-hmm. kon mm-hmm. na na mbon jóg na dox ca mm-hmm. waaye dafa sottiwut dafa sottiwut waaye ngi nii yéene na génn dem caaxaani mu sangu solu dégg génn jëm fi nga xam ne fa la doon caaxaane yàlla ji sut taw taw bi bëri ba mënatul a dem tax mu ñibbisi hmm. dañ koy bindal bàkkaaru mbon hmm. ndax lotta tax waaye yéene na dogu na hmm. dox na jëm ca dégg nga de kii préparé na pour sàcc def li mu war a def yëpp dem fa muy sàccee la mu foogoon ne ma nga fa ñëw fekk ñu jël ko lottu na ci sàcc ga def sàccut de waaye am na bàkkaaru sàcc lu tax yéene na mbon ga mhm. yittewoo ko mhm. dox ci sabab ya mhm. waaye xàggut lu tax dafa lot hmm? ñeenteelu xaal bi waaye ngi nii yittewoo mbon toog ba mu neex ko rek mu génn ca waaw génnut ca te yàlla tax génnut ci it ngir dafa lot nar na def mbon ci kanam ne naa ko bàyyi sax amatul envie def ko kooku duñ ko ca fay ngir bàyyi gam ko bàyyi waaye duñ ko ca mbugalit ndax defut ko hmm? duul ne lotta tax waaye dafa yéene dafa yittee woon def bon ah, toog ba ci kanam rek cey yi maayi hmm. waaw te yàlla taxut nag hmm. amatul envie def ko rek kooku kenn duñ ko ci duñ ko ci mbugal mm-hmm. waaye duñ ko ci yool ndax bàyyiwul ko te yàlla tax mm-hmm. duñ ko ci mbugal ndax defut ko mm-hmm. defut it luy waral mbugal ndax fomm na nit soppi na xalaatam te soppi lu lotta tax waaye duñ ko ci yool ndax yàlla taxut ci yool it te lu bon pour ñu yool la ci foog nga bàyyi ko te yàlla rek tax subhaanahu wa hmm? lu baax pour ñu yool la ci Mm. Mm-hmm. Mm. Mm. fokk nga def ko te yàlla rek tax waaw lu baax pour ñu yoon la ci fokk nga def ko te yàlla rek tax maa nga yittewoo ko def te yàlla rek tax allahumma allahumma allahumma nu mooy firi ndere ndere mm-hmm. nag muy lu baax loo xam ne kenn du mënu koo def te yàlla taxut mm-hmm. xam nga yu baax yoo xam kenn mënu koo def te yàlla taxut ma xam nga laa ilaha illallah yàlla rek a mën a tax kenn lu mënu ko def te yàlla tax hmm. Hmm. ngëm ci sa xol hmm. kooku jëf la joo xam ne kenn mënu koo def te yàlla tax waaw waa am jëf yoo xam ne bu kenn mënu koo def te yàlla tax yooyu taxul ñu la wax mu ne yonent mu ne sallallahu alayhi wa léegi boromam wa in hamma biha su yittewoo baax fa amilaha mm. tam def ko mm. uh, déedéet yëpp yëpp romb nañ ko mm. wa in hamma bi sayyi'atin dem yittewoon na mbon fa lam ya'malha waaye defut ko katabaha bindu ko laahu yàlla mm-hmm. indahu fa moom xasanatan mm-hmm. muy mbaax kaamilatan gu mat sëkk mm-hmm. wa in hamma biha mi naa mën na muy téewoon na bihaa ci def lu ñaaw fa amilaha bakkanam not ko seytaane mën ko ba mu def ko katabaha bindu loolu laahu yàlla hmm. sayiatan muy bakkaar hmm. muy ñaawteef hmm. waxidatan bay benn eh? su sàgganee nag ba def ko lim def rëy na de waaye sama borom benn ñaawteef rek mm-hmm. la koy bindal mm-hmm. benn benn bàkkaar rek la koy bindal mm-hmm. ah, lu tax yërmande yàlla ji dafa bari dafa yàlla nee maa waral yërmande ci sama bopp kataba rabbukum ala nafsihi rahmati wax na ne sama na sama mer inna rahmati sabaqat ghadabi moo tax gis nga yërmandeem boo defee benn bu baax baa nga yittewoo bu hmm. fay la ci baax boo ko def ak jotee def bu fay la ci fukk lu hmm. tuuti tuuti hmm. bon nag lu mu rëy rëy dégg nga mu bindal la ko benn tiyaaba rek di xaar nag nga jéggalu mu may mu baal la imaam Nawawi rahmatullahi alayhi la wax wax ju solo bi mu ne fa nguur gannaaw bu mu solee xadis yi pare eh, mu ne xadis ji defee naa ne Buxaari ak Muslim ñoo ko solo ci seen saxiix ci ci ci xaraf yu leen mu ne rawaawul Buxaari wa Muslim fii saxiixayhima ci seen ñaari saxiix bi haadihi al-xuruuf ci yile xaraf mu taaliq nag waaw ne fandur yaa axi xoolal yow sama mbokk wafaqana allahu yàlla yàlla dëppale ñu wa iyaaka ak yow ilaa azimi lutfillahi taala ci aji màggi ji ñëwentug yàlla mu kawe bi wa taammal te nga seetat seetantal haadihil alfaada baat yi nekk ci xadis bi xoolaatal bu baax nee na baat yi nekk ci xadis bi ci ngay xam dëgg-dëgg dégg nga yërmande yàlla ak ñeewante ak baaxam xam nga indahu gi mu wax ci xadis bi katabaha allahu indahu xasanatan kaamilatan xam nga mënoon naa wax katabahu llaahu rek hmm. katabaha llaahu xasanatan kaamilatan hmm. waaye indahu fa moom yàlla ah mi ngi lay wan mu ne isharatan ila al ictinai biha ah mi ngi lay wan yàlla fonk gim fonk lu baax loolu ictinaaw wala xëy na koy firee sonne waaye yàlla du sonne mooy ak jox solo gim ko jox rek gëdd gim jox euh, dégg nga mbaax gi nga xam ne mm-hmm. moom nga def walla mm-hmm. ah? mm-hmm. mbaax gi nga xam ne moom la la bindal hmm? yàlla mbaax gi mu la bindal te yow defoo ko sax danga koo nar rek nee na xoolal mbaax googu daf koo fonk ba mu ne mu ngi ko bind fa moom subhaanahu wa fa moom maqaama indiya la ah? Euh, naka la ko sama borom waxe inna almuttaqina fi jannatin wa nahar mm-hmm. fi maqaadi sidqin inda mm-hmm. inda maliki muqtadir mm-hmm. am na ñu am hal janna waaye am na ñu am maqaama indi subhaanahu wa taala waaw ki nar mbaax te defu ko sax mu bindal ko mbaax bu mët sëkk indahu fa moom nee na xoolal baata indahu bi hmm? dégg nga boo ko jotee def nag mm. mu bindal la indahu fa moom mm. achra xasanaat mm. mm-hmm. lu mu bon lu mu tuuti tuuti fukki baax mm-hmm. fukki tiyaabu mm-hmm. ba ci juróom-ñaar téeméer ba ci ful yu baree bëree bëri kii nar mbon bàyyi ko ngir yàlla it katabaha allahu indahu fa moom xoola indahu bi xasanatan kaamilan nar musiba waaye xool yàlla mm. wa amma man xaafa maqaama rabbihi mm. wa naha nafsa an il hawa mm. fa inna al jannata wa na saydi ahmad tijaani radiallahu anhu mm-hmm. laaya jooju wax fa inna al jannata hiya al mawa laaya jooju def na ci fat waa ju rëy ca faas mm-hmm. waa ji fàtte woon alalam ju bari ci eh, fi ñuy dugg di fa defee li ñoo tuddee xammaam ba mu demee ba mu yàgg xelam daj ko mu daw ñëw hmm. di lox di kot hmm. koti hmm. dégg nga jaaxle ndax xale alal ju kenn xamul nu mu dafa bàyyi ki fa fekk muy toppatoo barab bi ne ko sa waay maa ngi gis yaa ngi kii rek lu xew waa ji mel ni mu ne ko xanaa euh, nangam sàngam ngay seet mu ne ko waaw mm-hmm. daal di ko dem di jox ko mm-hmm. kooku bég ne ko wallahi boo nekkul li doxal jënd sama jabar fase naa mm-hmm. sama jabar fase naa fuqahaawu faas yëpp ne fase bi dog na ndax fase ku ko xàcc luñ xamut fase bi fay dog te duggaal jënd kenn xamut ci dara kooku nag euh, jaaxle maanaam mbég mu amoon hmm. ci alalam ji mu trouvé hmm. am na njàqare mu ni toll mbaa mu ko ëpp hmm. jabaram ji mu nar a ñàkk ndax moom rek la bëgg alal kat lu mu neex neex bu fekkee mun loo ko bokk ak ki nga bëgg dootu neexati am ku ne ko demal ci góor gële waaw junj ko Cheikh Tidiane ba mu demee Cheikh Tidiane ko ah demal nga jël sa jabar donc fase bi dogut fuqaha ul faas yi boobu mm-hmm. faas ni meloon ci fuqaha amul mm-hmm. fenn fu ko meloon ci àdduna mm-hmm. ci ngay xamee dëgg dëgg Cheikh Tidiane borom xam-xam yi faas ñu daan bind ay tabaqaat sax bu ñëwee ba ci faas dañ leen di bindal seen i eh, tabaqa bopp ndax dañoo bari woon xam-xam lool lool waaw dañ daan wax ne amatu ahli faas niñ xamee bunti fiq yi boroom xam-xam yi dëkk yi sax xamuñu ko noonu a amatu yi mooy nitu normal yi mm-hmm. rawatina seen borom xam-xam mm-hmm. waaye bi ñëwee Cheikh Tidiane na leen mm-hmm. fase mi danga ko dogg maa ko waa maa man xaama maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa minal ki ñàkk bay liggéey fii gis alal nga xam ne bu ko jëlee addunaam ah, yëpp jag mu bàyyi ko ngir ragal ne bés dana dajeeg yàlla mm. te yàlla dana ko ko xisaab mm. kooku yàlla nee na aljana mm-hmm. mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. Mm. Euh, tax na mu ba ñaawteef gi mu neex neex ci bakkanam ci bëtam kooku yàlla nee na loolu neex na mu ba dinaa ko bindal tiyaaboo bu mat sëkk faman faman indahu mm-hmm. Mm-hmm. waaye seetal ba muy wax ki nga xam ne def na lu mm-hmm. ma uh, uh, wa in hamma bi sayyi'atin dégg wa in hamma biha mooy wa in hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatan kaamila waaye wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu ana indahu amul fa de katabaha Allahu sayyi'atan waahidatan mel ni daf ko dafa ñàkkal fayda li ñu koy bindal hmm. nga xam ne duñu ko fi moom de ma hmm. ngi ko bind mu mel ni ma bu doon distance am na fële la ko teg rek hmm. nga xam ne buy buy waaj tuur rek loolu disparaître waaw moo tax mu ne xoolaatal bu baax baat yi jëfandikoo fi ci ngay xam al itinaa waaw yàlla fonk gim fonk euh, ab jullit Ah, ak fonk gi mu fonk mm-hmm. def mbaax mm-hmm. ak fonk gi fonk mm-hmm. fas yéene def mbaax ak fonk gi fonk ba mbon ngir ragal ko moom tabaaraka wa taala mu ne itamit xoolal wax ji wax kaamilatan bu mët sëkk li tëkkiidi ngir feddali wa shiddati li'tinaa'i ak tatuk fonk dégg nga bihaa ca ab jullit def ci mbaax ak loolu ab jullit ba ci mbon ngir yàlla subhaanahu wa taala mm-hmm. mu ne wa qaala fi sayyi'ati allati hamma bihaa summa tarakahaa mm-hmm. kataba Allaahu indahu hasanatan kaamilatan fa mm-hmm. akkadahaa bi kaamil wa in amalahaa katabahaa sayyi'atan waahidatan fa akkada taqliilahaa bi waahida dégg nga mu ne mu ne wa in amalahaa katabahaa sayyi'atan waahidatan su ko defee nag mm. mu bindal ko benn ñaaw ñaaw mm. benn mu mënoon naa wax katabahaa sayyi'atan mm. sayyi'atan benn ñaaw te mu ne waaye waahidatan benn kott mu ne fa akkada fa akkada mu feddali mm-hmm. taqalilaha néewal ñaawteef bi mu ko bindal bi waaxidatin ci mm-hmm. waaxidatu mm-hmm. xam nga boo ne sëy atum rek mooy am mooy ñaawteef bu xam ne ñu benn la boo ca tegee waaxidatum rek mooy yaa ngi koy feddali xam ne benn kott wala yu akkid ha bi kaamila feddaleewu ko te akidul ko bi ka baatu kaamila tukkale mu ne fa lillaahi dëgg dëgg ñeel na yàlla alhamdu sant wal minnatu subhaanahu laa mm-hmm. laa nuxsi hanaan alayhi mm-hmm. mënuñu ko mënuñoo matal mënuñoo matal euh, dëgg dëgg mm-hmm. cant ak tànk gi nga xam ne moo war ci ñun ñëpp subhanahu wa taala naa ñu taxaw fi ba suba ñu dugg ci euh, fawaay yi bi illahi tabaraka wa taala هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم